allahu rabbul alamin laay tàmbalee mën bër lamin julli ci xëyril alamin tey tagg ngeen ji limaan danaa fi junj ay mbiram lu niiw lu tuut lu ma ci xam xawma azakaay azakaam yàlla xamoon rek lu mu doon danaa la wax fonk sunaam li tax mu doon ngeen ji imaam li tax mu doon xëyrul anaam Cheikh Abdou Khadir sang bi laa bëgg a wax man dongo bi ndax xaaju kaw bu njëkk be daa am la toot lu dikkul woon ku mas ni jàkk rek fi moom sag jaaxle jeex seex jiili moom ku mas di tàllal ay loxoom duutu jugaat di sakku ñaan ku def lu jar na way ko muy Cheikh Abdou Khadir li yaram dayo mooy ku bàyyi ko Tambacounda ka ñëw jàkkaaroog jenn jëm am aaju toll ci téeméeri junni ci jamono yooye nga dis ko nit mu taxaw ci ni fas naa ko def ku dul yàlla sam borom mënta tee ma def ko kooku ku du doomi suñu coow mënoo ko jànkat yi ki bëgg jànkat yi doyloo jànkat yi taq ci jànkat yi doon seen lépp te amub cër lool fu ko ñëpp amee moo xaay tey mu sax ma baara Baay Faal waaye sëñ Bara daal mi ngi am mbégte ci seeni teewaay lool di eh, wax ne nag woote eh, yomb na ñoom sëñ góor ñoo koy wax waaye woote ñu wuy la moo jafe te yaakaar naa ku xool baas bi danga xam ne sëñ Baara wuy nañ ko. sëñ Baara nag euh, dégg naa euh, ba tey góor a nga junj am solo ne ko da nga dégg ay waaleykum salaam ba tey wala ay asalaamaaleykum waaye defe naa bu ñu ko fayee borom noonu lay deme sëñ Baara maanaam xeebut kenn xeebut benn bis ak lu mu mën a doon boo ko waxee tam leer ko ne. Euh, lu jëm ci lislaam la lu jëm ci sëriñ bi dana ca def yitte Baye faal gi nag ma ñëw ci comme li nga wax ne sëñ Baara foo ne sëñ Baara bu sa Baye Fall man euh, li tax ñu mane sax mooy Baye faale gi ndax yàlla dama def may ku Baye Fall lool ba neexuma cee dab moo tax dañuy déggoo lool maak moom ci waxtaan ak jëflante te lu mu mën a doon bu ma ko yëgalee danaa bokk ci ña fay njëkk lépp nag jikkoy Cheikh Ibra Fall ji ndax nag Cheikh Ibra dafa dafa dafa jëmbat loo xam ne li may wax Serigne sëriñ du ku ñu xam waaye Cheikh Ibrahima Fall du ku ñu xam wax dëgg yàlla euh, li ñu li ñu réere ci moom bëri na lool li ñu umpale ci moom bëri na euh, waajuram mu tedd wa la taxoon mu dàkkantale ko boppam Cheikh Ibrahima la nekk ci moom ci ay makaarimul axlaax kenn xamul nu mu toll kon jikko jooju nga xam ne sëñ Baara amee nga ko amee ko ca sa waajur wu tedd wa moom it mu baax lool ba bay dàkkantale boppam Baay Fall loolu sori na ak rëy ak mbaax ak sell jikko képp la kon ñu ngi ñaan ci mbaaxu yàlla ak tedd nga am ak ku fi ñaan yaa ku fi ku fi teew yàlla euh, jéggal la te saafara la mboolem jàngoro te sottal mébét yi Seex Mustafa yaa nuy teral yaa nuy yërëm dinu may dërëm mbàkke yaa nuy defal yaa nuy defal yaay jenn waay Cheikh Moustapha yaa xam teraangay mag ña Bàmba yoraale woon moo tax yilif nga ba jàll Saalum jàll xaay sëñ Baara yaakaar naa ni mu demee ci rajo bi rek kenn ku nekk gis na ko ci taxawaay yoo am solo yi mu ci taxawee ak bëgg gi mu ci am loolu rek jaroon na nu jël jumtukaay yépp indi ko ci bisab bi ngir ñu couvrir bis bi waaye loolu doyul sëñ bi yabal ay jëmm yoo xam ne ci ñoom ci boppam la nu bokk mu yebalil fi loolu day wane rek ne sëñ Baara sëriñ bi fonk na la Cheikh Amadou Lamine sëñ bi nee na mi ngi lay sant bu baax di la ñaanal bis bi yàlla nga ci la jëngërëmal Cheikhul Khadim bég na lool ndax laata nga koy jàpp jàpp nga say bokk te ni sëñ bi kenn ku nekk gis na ni ni muy doxe mooy nit ku nekk nanga def say bokk noonu lay def te def nga te jàpp nga say bokk ba noppi jàpp ko kon sëñ bi yëg na lool te jàpp na ko bu baax te it am na ci bég te lool nee na sa diggante ak moom doonut lu ñuy wax ci ay rajo ngir diggante bu yàgg la te sori lool am yu bare bare yuñ ci joxeñ nee na loolooy sababu rek mu yebal njabootam di la wan la lépp loo nekk loola la caa war a nekk ngir fi nga ko teg xam na ko teyit bàyyi na ko xel lool teyit kenn ku xam sëñ Baara Bousso xam nga ne ku am cofeel ci sëriñ Cheikh ku ko bëgg la ku coful benn mbiram la ci rajo bi wane na ko ci ay jataay yu bari yoo xam ne day xew daarul xudus yooyu wane na ko kon sëñ Baara ñoo ngi lay sant bu baax. kàddu yi moom xam naa lootu nañ ci sax waaye day doon digal loo xam ne rek dafa bàyyikoo ci suñu kilifa yi nga xam ne moo waral suñu teewaay fii muy sëñ Amdi Fall mu sëñ Abdourahmane mu sëñ Mourou Moustapha Fall di ko ñaanal saa yàggal ko fi loolu tam ànd ak wér mu boole ñoo rakkam di sëriñ Cheikh Fall jëmbu mu sëñ Abdourahmane mu nga xam ne moo newoon ci sëñ bi nga xam ne moo fi bàyyeekoo jëmm nii muy xalifa bi moo nekkoon lépp mu boole ñoo moom ñu teewal ko ci bisu sëñ baare bii nga xam ne nee seen diggante boobu ba léegi kanam lay gën a jëm waaye deltuwut ginnaaw te mi ngi koy matale moom sëñ baare fu sëriñ bi ma sa nekk ànd na fa ak moom ba oriental ànd na fa ak sëriñ bi fekk si ko fa ci bis bu ñu dëpp woon bàyyam ngir ak mbaaxam ak wóllëreem ak jikkoom ju baax loolu sëñ mu ngi koy seere ci moom bu baax a baax di ñaan saa gën koo jëmale kanam bu baax a baax dàkkantel bi nga xam ne moom lay dàkkantelu mi ngi ko ciy ñaanal ci doole yi maam Cheikh mi nga xam ne mooy borom yoon wi mhm. saa borom defal ko lu kawe njortam ak li mu bëgg a liggéey lu sëriñam lépp kàddu yooyu daal sëñ bi ne woon ñu jotale ko sëriñ Baara nee na sëriñ Cheikh Abdou ñëw na fi ci ndigalul sëriñ bi indaale ay ñaan indaale ay lépp ku ne xam na it bàyyi xel gum bàyyi xel sëriñ Baara loolu ci turu suñu kilifa yëpp ñu ngi ko koy sant bu baax a baax ca di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi mu ànd ko wér naka noonu it sëriñ Abul Baraka Mouhamed Cheikh Ahmadou faadal yabal na fi sëriñ Fadilu Bousso moom sëriñ Abdou Xarija moom it mu ñëw fi indaale ay ñaanam ak i xeewalam yu bare bari moom it ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax ku ne xam na ne sëriñ Ñang Bousso Baye Fall lépp bis bii nii bu ko daan taxawal day wax ne sant sëriñ Fallu ak sëriñ Abdou Xaadir ak maam Afia. kon sëriñ Abo moom it ñu ngi koy sant bu baax te di ko ñaanal sëriñ si Ahmad Makke moom si Abdul Xaadir it moom it jabal na fi délégation bu am solo moom it ku ne xam na ne njaboot gii njabootu si Abdul Xaadir la sëriñ Baara ak sëriñ Sam seen waajur ci kër si Abdul Xaadir lañ leen jabaloon sëriñ yi sëriñ Abdul Xaadir moo ko yar kon bu njabootu sëriñ Abdul Xaadir yi bis bi loolu yell na te lu jaadu la ñu ngi ciy sant bu baax ci di leen ñaanal. ne ko noonu sëriñ Bousso yu Bousso xalifa sëriñ Bousso be di ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi ànd ak wér na fi ab délégation Serigne Jili Bousso ak Serigne Serif ak ñu ñu àndaloon. nekk noonu njabootam fu mu nekk ci njabootu Bousso bi moom it dana fa teew wala mu yable fa délégation boo xam mën na sëkk ñu ngi koy ñaanal moom it suñu borom mu yàggal ko fi ànd ak wér ak mboolem mbokk yëpp ci saa su nekk ak ci lu mu mën a nekk ak san ak ak ci lu mën a nekk jàpp na ko fa jàpp na njaboot ca loolu mu def dañ ne. jaan gudd na loolu waaye lool laal ci genn ba rek bopp yëg ko kon na yëg ne askanu yëpp ñu ngi koy sant bu baax ci loolu ci di ko ci gërëm ci di ko sant ci taxawaayam bu rëy bu muy def ci moom ci jamono yële ci ginnaaw am na ay gàllankoor yu ko defoon taxawaay yi mu ci def yëpp mbokk yi nañ ko sant nañ ko ci bu baax a baax te gërëm nañ ko ci ndax taxawaay bu mat sëkk la boo xam ne nii ay kilifaam ñoo ko waroon taxaw mu wut leen ci taxaw ko xam na ne ngir moom lay àndal ci saasu ne ak loolu loolu it mbokk yëpp yëg nañ ko bis bi bi mu tàmbalee ba léegi ñun bi ñu fi def appel bi ba léegi organ de presse yi Serigne Cheikh yu am yëpp ñu ngi jàpp ci bis bi ci mbooleem rajo yi nekk ci biir dëkk bi ak yi nekk ci dëkk bi ko suñ góor a yooyu léegi ak ba ci site internet bi loolu it di coûter lu bëree bëri cu xam ku xam communication ñu ngi sant bu baax it sëñ jëm bu faal mi nga xam ne moo fi teewal sëñ Amdou ci cikki ak mboolem délégation bi mu àndal yëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci turu sëriñ bi ak ci turu mbokk yi turu sëriñ Saam ak sëriñ Baara ne ko noonu di sant mbooleem taalibe yëpp yi nga xam ne aju nañ ci kër sëriñ bi ci kër sëriñ Ñang so Baye Fall sëriñ Saam Bousso mi nekk seen jawriñ ñi nekk ci dëkk bi ak ñi nekkul ci dëkk bi ñu nekk Mbuur ak Jiwaalo ak ci Ndakaaru ak fu ñu a bàyyi ñoom ñëpp sëriñ bi mi di sant bu baax ci xam ne bis bii seen kilifa moo ko doon def ñu ànd moom ne ko noonu ñu ngi sant bu baax a baax waa fondation Dialibatoul Marakhib bi nga xam ne moo lëkkale njabootu sëriñ bu Bousso gépp ñi ngi fi teew sëriñ Xabbaan Mbàkke jiite ko ànd ak sëriñ Abdul Mutalib Bousso ak mboolem ñu àndal ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax ci di leen gërëm di sant mboolem daayire yi nekk ci koñ bi jàpp ci liggéey bi di sant bu baax waa fédération yi Cheikh Abdoul Khadir ñi nekk ci Touba ak ñi nekk ci Dakar ñoom ñëpp kenn ku nekk xam nañ ne seriñ Sam ak seriñ Baara ci njabootu Cheikh Abdoul Khadir lañ bokk bañ ànd ak ñoom ci bis bi naka noonu it ñu ngi sant mbooleem soxna yi nga xam ne ñoo nekkoon ci waañ wi di berndeel gan ñi ak di taxawu waañ wi ñu ngi leen di sant bu baax ñu dëkk ci koñ bi ñu bokk ci kër gi ak ñi dëkkul sax ci koñ bi ca dégg liggéey bi ñëw ànd ceeg moom kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp lépp loo xam ne nii di sant bu baax sëñ Abdoulaye saw cees ak sëñ ma Kumba Ndaw ca Ndakaaru ak daaray alxuraan yi nga xam ne bi bis bi taxawee ba léegi nga xam ne ñoom la ñu waroon jiital ñi ngi jàng ay kaamil ak ay xasida daf ay salaatu ala nabi ngir jagleel ko sëriñ bi ak ñëpp di sant waa Mbour bu baax mbokki taalibe yi nekk Mbour ak fédération Cheikh Abdou Khadim ak taalibe yi nekk Touba ci seen seen jëwriñ nekk fi nekkoon ci appel bi doon ko wax ak ñu mën a nekk ñi nekk Darou Manane ñi nekk fii ñi nekk ci mboolem koñ yi nekk ci Touba sëriñ bi ñu ngi leen di sant bu baax ci jàpp gu ñu jàppoon sëriñ Ndiang Bousso Baye Fall biñ ko gisul ñu wéyal loolu ci njabootam gi ci sëriñ Baara di jëwriñ ñi ànd ko sëriñ Baara ak seen rek ak seen i waajur yi nga xam ne ñoom lañ nekk ci kër gi kon daal kaddu yi lañ koy bañ a guddal sëriñ bi mi ngi sant ñëpp di sant jàngkat yi jàngkat yi xasida yi ku xam sëriñ baara xam ko ak jànkatu xasida yi saa su nekk fuñ mën a xewle ak lu ñu mën a dem ñu ànd ci moom bis bii ñuy taxawal ci di ko defal maa moom sëriñ Afia bu sodee saa su nekk jànkatu xasida dañ ko fay dikkal kon xam nañ seen diggante ak ñoom kon ñu leen di sant bu baax leen gërëm kon mbokk yëpp ak dëkkandoo yi kenn ku ne ban jàppe bis ba léegi kenn ku ne yaa ngi def sa loo man ak loo mënut kon nag dana jaar nu sant leen gërëm leen waaye nag di leen booleeg Cheikhul Khadim mu fayal leen boppam. maa ngi seedeel sama kilifa yi Serigne Cheikh mu nga xam ne moom mooy Serigne Aliou sama cant ci moom ak ngërëm ci moom de mënuma ko misaal saa ne ndax mënuma koo wax bam bam bam fa ma ko mën mën a àgg daal sama làmmiñ fa àgg waaye sant naa ko sant goo xam ne sëñ Tuubaa laa koy tamit jàpp na si say rek baatin si Mouhamadou Mountakha kon ba ma sëggee ci kanamam di ko wax. dafa dafa dafa ree ree ji daa dem ba su guddi gi mu mu fàttali ko la ma ko wax mu ree ba ma xëy si àjjuma gi Cheikh Latif foo ma ni ma sëñ mu ndaxare wax ji nga ko ko xor daa xor si moom lool waaye yëg naa ne ñaanam essi na bu baax a baax a baax yëg naa bu baax a baax a baax a baax sëriñ Abo mu Cheikh Abdoul Fadal xam ne sunu waajur bis bi moom ko moom la ko defal yónni bi suñu laaj fàll bu sunu waajur barki démb rek demaan naa fa te ko fàttali man ma fàttiwu bés bi yónnee na fi ay ñaanaan ki taraangam kon ni ko Cheikh Mourtala waxee sëriñ Cheikh Moussa Abdou Khadir léeg la fi Mor Mbengue nga jógee ni ma sëriñ bi de ñàkk gi mu ñàkk ñëw ci bis bi am na ko tiis na ko lool waaye tey jii xat gi mu xat xëyoon dem jaara ji woon fa xew-xew yi am ci dëkk bi mu war ngoo taxaw waaye dama ne ko Mor ma ne ko sëñ bu ñëwut daana ñëw ànd ak sunu waajur kon mun gisul tey ni xam ni la ko gaar la ko gaar xam nañ ko te yaakaar naa ko ànd ak moom ànd ak moom lu mu gàtt gàtt fanweeraat kon xam naa ci moom bu yitte ci moom suñ Cheikh Jëmbu jami fi teewal siñu am di di sunu xarit nu yàgg lool yaakaar na suñu jaxasoo 97 laa dem cikki nekk faak moom ba 2000 mu jàpp nu lool fàttiwu ko fàttiwu ma ko taraanga ji mu yén mu ji si ñun moo na ko njëkk ji foofu kon nag ni ngi lay yóbbante ak cant ak ngërëm ak ñaan leen am suñ boroom sàmm ko dagale ko yéenam te sant mbooleem waa koñ bi yëpp bàyyiwuñ kenn mbokki mbusoo bi ak lu mbakke kenn desut kenn sëriñ Saam daal mooy wax lu man waxuma lu ma wax sëñ Saam ma ko wax loo ndax mooy sama kilifa maa ngi koy seede sëñ Cheikh barki démb nee naa ko bu ñu noppee gi sunu waajur ba léegi di lu mu ma war a jàpp jàpp na ma ko ak daara alxuraan yi nga xam ne nag maa ngi ñoom laa waroon jiital waaye fi ma wax ku kàddu gi fekk la ban jàppe bis bi kenn ku ne dama laa woo ne dama bëgg nga ñàngal ma alxuraan ñaanal na sunu waajur wa ñu jàng na fi ay kaamil yu bare bare ñaar fi kaamil ak juróom-ñett suñu moo fi mujj tey si bëccëg fi la fi la dajee xatma bi kon nañu sant mboolem daara alxuraan yëpp suñu Ablaye Samb ak maam Malick ñi nga xam ne ak suñu góor a bi leen suñu Cheikh yabalee seen si si ndigalu seen Cheikh dañ see def seen yitte yu mat sëkk si bis bi ndax mënoon na leen suñu yabal na nu bare nu def lu leen neex waaye sëñ bi leen yabal par defaat seen yeneen yitte bopp bis bi bu set bi bu set nu jàll communiqué bi jàll appel bi. ndax xam naa temps de antenne li muy li muy li muy li muy jëriñ ndax ci communication communication lay dox. xam naa ko bu baax. kon nag dana jaadu nu sant leen gërëm leen. sunu maam ji toog sëñ mën naar wax dëgg yàlla lii rëy na si ñun lool waaye nag ab soññee la ab soññee la si ñun ndax suñu wootee say kilifa wuy si la toog ak yow. loolu rëy na ñun loolu waaye nag ñi ñi ñaan sëñ Tuubaa mi nga xam ne moo mën dimbali yàlla leen dimbali te yàggal leen fi te ngeen wér mbooleem mbokk yi fu waaye mën a nekk fu waaye mën a jógee ci réew mi ak bitim réew kenn ku ne taraanga ja nga yi nga jëf si bis bi gis sëñ Saam gis na ko yëg na ko njaboot gis nañ ko ni ngi kalaamee sëñ mu fay leen boppam di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu